ginnaaw tànneefu Amadou Ba candidat Benno Bokk Yaakaar soxna Ami Mbacké dage ministère des affaires étrangères responsable politique ci Touba ñëwaat na ci base bi fii ci Mbacké loon nag dajee ak ay responsable am premier ministre Amadou Ba ne gouvernement combat la combat boobu bëgguñu kenn jiituñu ci front bi ñi ci ciy àndal nag niñ ko daan defee ak lu mën a xew te parti bi soxla ko président Macky Sall soxla ko mooy ñëw tàllal leen loxo loolu moo ñu dajale woon fii tey ñu dajale woon suñu ay euh, président de groupement di leen tàllal loxo ci lii nga xamante ne bi ci leen jëm. ba tey am na nañu yéene dugg ci parrainage bi ak doole moo taxit moom soxna Amy Mbacké joxe na ay directives. deuxième point bi tamit nekkoon muy suñu parrainage yi ñu jëm parce que candidat bi ginnaaw bu ko président tànnee euh, dañu soxla dem ci askan bi ndax ñu mën a jàllale candidature boobu. mbooleem jigéen ña fa teewoon ak jeunesse bi wane noonu nag engagement bu mat sëkk. waaw ci kaw bàyyi ci suuf loolu amul. lii nu ko parrainage nan ko ni woteel. nanu góorgóorlu bu nu parrainé ami ak fu mu ñu woone fa lañ koy sànnile xob yi bu doon ci kaw garab gi nañ yéeg bu dee ci asamaan sax nañ jéem a yéeg. monde rural baa ngi nii kenn ku ne am nga fa nit. kenn ku nekk ami daa soxla ñi ci monde rural bi. soxla ñi ci ñi ñi ci Touba soxla ka ca Dakar soxla ka ca Louga kenn ku nekk foo am nit jëli ko ñëw teg ko ci loxo ami doo ci am gàcce. côté boo xam ne boo fa demee am fa mbooloo ñu paree parrainé la dem fa bu kenn tàyyeel bu kenn tëdd bu kenn nelaw. képp koo xamante ni jeunesse Touba nga ñun soxna Ami lañ xam moom lañ gëm moom lañ wóolu moom lañ yaakaar fu mu jëm moom fa la ñuy àndanteeg moom jëm fa luñ ci boobee nag gar. man mi ngi koy jàpp kon nag ñun li ni man mooy dooleel ko jàppale ko ba fi mu bëgg àgg mu àgg fa te loolu tamit ñi ñëpp ñu ngi ci may gën a taxawaat di gën a waat félicité waat tamit présidente groupement yi ndax ay jàmbaar lan da ngay jël sa téléphone woo leen man nu mën di dëkk fu nu mën a ne boo leen soxlaa da leen gis. rawatina parrainage yi ñu commencé yaakaar naa ne deux jours lañ ci def diñ ci njëkkoon a jot yaakaar naa miin la te yaakaar naa ne parrainé nañ ko. ndaje bi bokkoon na si yiir benn responsable bu mag bu bàyyeekoo ba daaru Muxti ñëw nag ngir ànd ak moom ñu liggéey kookee di Omar Lo frère du ministre Thierno Lo. di rafetlu nag nit ñu daf si ci liggéey bi muy sunu frère euh, Omar jóge daaru Moussi. ñew pour japp ci liggéey bi ñukay dalal sëñ Omar di la wax ñu ngi lay talal loxo di am yaakar tamit mhm. euh, ci li nga xamanteni bi mom lañ jëm euh, yalla may ñu ci ndam. dar Musi ña fa ne kenn la ci mën tan pas dama ko tan parce que yeen wa tuba xamu leen mom la leen bëgg leral 2000 la commencé taxo ci meeting politique di wax sama mag ñu bok ndey ak bay mu nekk ministre ma nekk loxo ndey kon politique ma ko jàng ba mokkal jàngee ko ci diggante Thierno Lo ak mu Diagne Fada du ci laal sa morom li Thierno am te faada amu ko jàng naa ko li faada am Thierno amu ko jàng naa ko Daaru Musi ba fa Thierno nekkee da nekk fa ma Sall nekk donc ko nekk fa ma ñëw nekk candidat ci sama poste ba am naa junniy voix ak juróomi téeméer yu manqué juróomi nit sama baay daa yor Daaru Musi fanweeri at ñu jox ko doomi borom daaru sëñ Abdou Xudóos di sama sëriñ sama jabar di sët sëñ Abbas doomi borom daaru tabax naa école daal musi tabax fa ay courant maye fa ay ndox defar ay juma defar ay jàkk defar ay daara ay alxuraan dëkkantuma daal musi dama faa dëkk kenn mënu faa politique te waxoog man naa ko jàppale guddi daje bi moom si la profité soxna Amy Mbacké biral ni kat moom ay activité am fépp la si biir Sénégal rawat na fii si département de Mbacké profité na indi gis nam si zone yi nekk Touba yi mu jàpp ni nag si benn anam gàllankoor lay doon si képp ku bëgg nag fesal sa politique man man man zone yi def jël naa ci sama religion sama religion mooy man confiné ma ci zone parce que pour ñëw Mbacké su ma dekkoon ci zone du ma mën a ñëw Mbacké yaa suivre actualité yi ñi ngi évoluer au niveau de Dakar ñi ngi ñu talal loxo daru Musi ñi ngi ñuy tàllal loxo Kaffrine ñi ñuy talal loxo à travers le Sénégal donc man mënatuma teunku man personnellement ci zone donc euh, defe naa ne te tamit damay lancer un appel ci ñi ma seqal zone ñu transcender ay zone manam génn zone yi liggéey li président fépp foo xamante ni bu ñu waxee nit ñi dégguñu loolu nak ku des ci zone doo ko mën man mom teunkuma sama bop ci zone te su fekkentene zone moy responsabiliser nit ñi man affranchiru naa génn ci zone yi je suis au niveau national maintenant et j'aspire à aller à l'international fépp fo xamantene bi suma ne dama ne ñu dégluma pour que présent. Amadou Ba mën a am ndam ci ndigalu président Macky Sall. soxna Amy Mbacké ni bu ñu jógee si état bu parrainage bi am na yeneen activité yu ñu fas yéene wéyal ngir baral liggéey bi jëm ci 2024. ndaje bi mi ngi doon amee si Mbacké si kër Serigne Djili Mbacké di waajuram moom it biral na ni kat lu nu nekk ma nga ca boole kook digal leen ay conseils yi ngir ñu mën a réussir seen objectif. lii doy daal mooy ñu fexe ba objectif bi ñu am ñu atteindre ko loola rek moo ñu mën a dimbali. waaw kon ñu góor góorlu bu baax te bàyyi xel loolu te bañ fee jóge rek aussi kenn ku ci ne doxe na mane rek déedéet chaque jour dañuy jàpp ne kat nun ñëppi gor lañ te toogoon nan wax ci mbir mbir moo mënu toogoon wax na kenn ku ci ne di ko bàyyi xel